dañoo bokkoon ci coalition wàllu Sénégal jiite woon liste bi département Mbacké ku ne xam ne li fi jaaroon yëpp jëruñu si waxaat askan wi nga xamante ñoo taxawoon ba li nga xamante ni moom la Macky Sall bëggoon sortiwul ñu ngi leen jaajëfal di jaajëfal kilifay diine yëpp rawatina waa Touba di jaajëfal coalition yi ñoom ñëpp jàpp nañ si ba li nga xam ñoom moom lañ bëggoon. ngir impulsé ma ma bañ a participer ci élection yi pour ñu mën a sàcc Touba defuñu ko ba bi ñu génnee dañ leen di humilier au niveau de Touba. élection Touba nag ñu bari chiffre nañ ko cent 606 bureau de war la yëpp duñ ko gagné Macky Sall Mbacké 77 bureau de war la yëpp duñ ko gagné Macky Sall mosul am ci histoire politique au Sénégal humiliation bi mel nii ci Touba ak Mbacké. kon population bu Touba ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal di leen xam ne foofu ñu teg seen tànk foofu la malgré que jafe-jafe yi am yépp ci élection yi ndax ni ko dëcc waxee Touba ba samedi tuuni mi fii si ministre de l'Intérieur tuuni mi nekk foofu yebaloon na benn xale mu ànd ak benn candidat si département bi ñëw ci suñu nit koo xamante ni moo yore suñu charte de sélection proposé fukki million pour mu jox ko téeméeri PV ci dix million la yëkkate ko si kaw otoom ni ko jox ma rek fukki PV dimanche téeméeri PV te jël fukki million yi kooku am ak mat kooku am ngëm-ngëm kooku gëm li nga xamante ni mooy suñu projet bi na am ni ko ba ma doon jox milliard du tax ma jox la PV yi kon il faut que ñuy jaajëfal ñooñu musal Lamine na ngeen xam ne ay gor lañ àndaloon Touba te ñooñu gor ñu mat sëkk lan ba Aliou Sow yi nga xamante moo am lii nii ñu ngi ko àndaloon ñëpp ñu ngi leen jaajëfal beneen comme ni ko Lamine waxee ku ne xam na ni bi nga xam ñun ñu ngi dem campagne dafa am lu ñu waxante woon ak askan wi mooy lépp loo xam ni du bëgg bëgg askan wi du ngi ñu ci gis yàlla dogal ñu dem seeti askan wi askan wi jox ñu majorité mooy 83 députés opposition laa wax ñi opposition xañ Macky Sall majorité ndax Macky Sall nee na 82 la am waaye ni mu doon bëgg a def Touba comme sa tuul xaw ma fayeen fu mu ko def mais li am solo rek mooy fexe na ba tappale ba ne am na 82 députés mais tey 83 députés yi nga xam opposition am nañ ko tey mooy majorité kon Macky Sall amul majorité Sénégal loolu moo tax askan woowu xamal nañu dañoo am ay jafe-jafe yoo xam ni bëgg nañ ngeen dañuy waxal moo tax bi ñu gisee mbënd mi am askan wi sonn ñu gis am ay nit yu ci faatu ñuy jaale seeni mbokk ñu ne ñu suñu ngor mayuñu ñuy participer ci ay élections yoo xam ni dafay coûter bi nga xam ne mooy huit milliards cinq cent cinquante millions da koy coûter Sénégal élection euh, au conseil bi boo jëlee beneen éle beneen euh, chambre bi nga xam ne mooy conseil économique social bi Idriss Seck nekk dafay coûter sept milliards quatre cent et quelque ñoom ñaar boo leen boolee mu nekk seize milliards quatre vingt onze millions quarante mille deux cent quatre vingt quatre francs moom la ñaar yooyu di boole. ay mi ay député ñoo ko wote assemblée nationale. Déthié wax na ko nee na bu fekkente yàlla dogal dem nañ assemblée nationale. te ñi nga xamante ni mooy ñeneen suñu yeneen collègues yi nga xamante ni fan na neen muy ay député ñu leen di tàllal loxo bi leen woo parce que procès askan wi kenn waru ko trahir parce que bu fekkonte ni dañu dem ànd ak Macky Sall du ñu am lu ñu am comme askan wi si bopp moo taxaw ñu am li naan am ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw ranger wu ànd ak ñun ngir intérêt peuple bi ngir que li nga xam mooy loi yu bon yi ak li nga xam mooy soxlaa askan wi ñu man ko jàllale. kon du ñu participer ci li nga xamante mooy élection yi waaye dañu si dolli ñi dana dugal insha allah bu ñu yàlla defee ñu dem assemblée nationale comme ni nga ko waxee loi boo xam ni dafay supprimer li nga xamante ni mooy ñaari sàmbur yooyu parce que amul askan wu njariñ te xaalis boobu noonu mën nañ koo dugal ko si dundu gu seer gi pour mu wàññiku dugal ko si li saafara mbënd mi malgré que def nañ 766 milliards yoo xamante ni def nañ ko te kenn xamul fu xaalis boobu jaar kon yéen askanu Sénégal du ngeen ñu gën a gore pare nañu ñu ñëpp pour kenn ku nekk nga xool li nga xam mooy intérêt peuple bi nga di ko wax di ko def ba ci pencu ndaw réew mi ñoo xam ne majorité bi ñoo ko yore mën nañu samp assemblée national loi yi bon ñu mën ko jëndi li nga xamante ne mooy au conseil bii nga xam moom lañ war a wote même ko wotee bu jàllee bu bis sam ñëwee assemblée nationale ñun yi mën nañu bañ wat ci bis boobu noonu te buñu wate bi bis bi au conseil bi du dox kon jàpp naa loolu ba tey beneen anam la boo xamante ni ñëpp laa si tàll loxo muy opposition bi ndax xaalis bi koy doxal mu war a nekk maanaam huit milliards cinq cent bu fekkente ni indi nañ ko assemblée nationale muy bi yaakaar naa buñ ko wotewul ñu ñu am majorité bis boobu du jàll assemblée kon yaakaar naa loolu tamit beneen anam la boo xamante ni au lieu nekk di dugal ay loi peut-être que muy xaw a yeex mais man nañu bloquer budget boobu sa bi du mën a jàll ndax askan wi si boppam moo ñu gënal suñu bopp askan wi si boppam moom moo ñu wax ni lii nga xam ne moom lañ bëgg a def ànduñu si d'accorduñ si kon askan woowu nag mënul leen a trahir kon loolu rek mooy li nga xamante ni moom lañ waxoon dañ koy wax mooy ñu ñëpp ànd nañu côté élection yooyu noonu bàyyi ko ak Macky Sall ndax du bëgg-bëgg askan wi te ku ne xam ne élection yooyu noonu 70 pour cent yi Macky Sall moo leen di nommé askan wi fóolu leen. comme que nag am na si loo xamante ni ñun xam nañu ko kenn ñu si dugal kenn duñu si yóbbaale si tëgg yu yëngu noonu bis boo ko defee bu ñuy asab duñu waxti bis bi te doon dugal waa pour tas ko kon si vraiment leen di gërëm di leen sant wasalaamaaleykum wa